cheikh Mouhamadul Maahi cheikh Ibrahima Niass xafizahu llahu wa raah samaahata cheikh Mouhamadul Amin al muhib wakiilu daad mataana allahu bi sixatihi wa aafiyatihi sayyidi wa mawlaaya al imaamul akbar sayyidi Ahmad Tijaani sayyid Ali Cissé nasarahu llahu maa umrin madiidin wa sixatin daaima سيد الناطق الرسمي العلامة الفهام الدراكة الشيخ محمد الماحي سيد علي سيس سيسي السيد الأستاذ الشيخ محمد السراج الشيخ إبراهيم نياس وكافة أعداء اللجنة الثقافية الموقرين العلماء أصحاب المعالي أصحاب fadila almuqaddamin ahbaba cheikh duyuufa rahmatil muhda sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa mubarikun lakum wa likulli ixwa al aizza wa ummatina al islamiya kaafa بحلول هذه المناسبة المباركة المجيدة ذكرى مولد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين أيها السادة الأعزاء إن الحضرة الإبراهيمية كما تعلمون جميعا وكما في الأعوام السالفة منذ زمن الشيخ حامل رواء لواء محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفائق وفائق المحبين العاشقين لحضرة رسول الله القائل ومن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما ومنذ ذلك الحين تحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور من منطلق قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وتقيم الحلقات الربانية والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعن سيرته ورسالته من هداية من من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم وبأنشطة وأعمال خيرية wa insaniyatin ka nafxati rahmati min rahmatillahi almusda lilaalamin summa ha summa huwa alyawmu yaxduru fi saaxati hadihi almadina madinati alanwaar walasrar markazi sirri alxatmi bilmunasabati almawlid xuduran kabiran متميزا معبرا بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ومجسدا الأخوة الإسلامية بأسمى معانيها التي أرسى دعائمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واسمحوا لي أيها الإخوة والسادة الكرام أن أقصص الشكر والتقدير من أعماق قلبي لكافة أعداء اللجنة الثقافية العلماء لما قاموا به من مجهودات كبيرة في ترصيع المحاضرات العلمية القيمة طيلة هذا الشهر الفضيل سدد الله قتاكم ووفقكم ببركة الشيخ رضي الله عنه ñu ngi sant yàlla bu baax ci bés bi ñu ngi sant yàlla ci toog ci mbaar mi ñu ngi sant yàlla di toog ci barab boo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nokki na fi toog ci barab boo xam ne moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu jàngale na fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam toog ci barab boo xam ne suñ mënoon a génnee image yi nga xam ne moo fi jaaroon démb ci fësal jëmm ju rafet jooju nga xam ne nuruwut ku dul yonante alayhi salaatu wasalaam jëmm ju taaru boobu nga xam ne jëmmi xam-xam la xam waxam lépp xikam la li ko noon di nga gis ayatun min ayatillahi kon buñ toogee ci barab bi ci ahdu cheikhana cheikh Mouhamadul Maahi cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma ñu koy ziyaara mu baax a baax di ziyaara mboolem ay rakkam yu tedd ziyaara al imam al fadil waaye tamit borom gàmmu gi di cheikh Mouhamadul Amin rakkam bi nga xam ne moo koy gunge Cheikh Mouhamadoul Macky ak njabooti baay gi yëpp ak naatiqu rasmi Cheikh Mouhamadoul Mahi waaye ziyaare tamit ndokkeel lajna saqaafiya bi nga xam ne mu ngi ronu ci komaaf ci seen ak njiital njiital Cheikh Ibrahim Mamoun waaye njiital lajna saqaafiya muy commission culturelle bi di Cheikh Mouhamad Siraju Diin ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam di ay kawaadir nga xam ne ñoo nekk ci wara alkawalis ma leen ñuy jottali nag ngërmaaneeg soppe yu bëree bëri bëri yoo xam ne bërki démb ba léegi ñu ngi may oo di wax di rafetlu yu rafet yi nga xam ne am ngeen ko waaye xam-xam bu rafet bi nga xam ne fexe ngeen ba mu génn ci ay boromi xam-xam nga xam ne bu fekkoon na waxtaan yu silsila waxtaan yooyu noonu dajale neen ko dina doon mën a nekk solution ci problème yu bëri yoo xam ne société Sénégal bi mu ngi koy dund wala gën a alam bi mu ngi koy dund kon daal lañ na thaqaafiya duñ leen wax lu may bravo yal yàlla fay leen ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu euh, waxtaan wi nag mooy dañuy wax ne gàmmu feetoo juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci luy feeñal luy fësal mbokkoo ci lislaam mbokkoo ci yàlla tabaraka wa taala muy thème boo xam ne thème bu yaatu la làmboo na gàmmu gi lépp waaye dañ ciy jaar rek ndax ñeent fukki minit leen am bu fekkoon ne boroom xam-xam moo koy taxawee dina ci wax lu am solo waaye su fekkee ne nag ku mel ni man moo ciy wax amaan na euh, dinañ ci bàyyi lu bari waaye lum gaaw-gaaw di wax lan mooy gàmmu waaye duma ko yaatal ndax boroom xam-xam yu bari ci fan yii déglu neen leen ci ñu indi gàmmu euh, layal ko wala sax wax ay argument du wax layal ay argument yi nga xam ne mooy fësal ne gàmmu duhut bidaa waaye dinaa wax ne gàmmu ci baay radiallahu anhu dégg nga lan la gàmmu ci baay mooy bégee juddu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi ndax lépp loo xam ne am neen ko ci lislaam di ko tiitaroo nga xam ne muy julli muy xoor muy aj muy mboolem mbaax gi nga xam ne yàlla may nañu ko ñu bokk ci ñi nga xam ne yàlla wax na leen ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas bokk yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen gën ji xeet boo xam ne feeñal naa ko ci jamono foog naa ne loolu yëpp buñ ko amee ñu ngi ko amee ci barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax laay ji nga xam ne ubbee neen ko yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko wax la jullit ñi ne la qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu wax leen na leen ci ngëneel ne ci sabab ak ngëneel ak yàlla ak yërmaan ak yàlla bu ñuy bég neen bég ci loolu ndax loolu moo gën lépp loo xam ne dajale neen ko ci àddina ci koom ak ci lu mën a doon kon Ibn Abbas dafa firi laaya ji ne fadlullahi mooy alquranul karim rahmatullahi rahma bi nag yërmaane gi mooy lan mooy yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam kon yàlla daf ñoo wax nañu ne lu ngeen war a bëggee dëgg dëgg dëgg yéen jullit ñi mooy na ngeen bëggee alquran mi nga xam ne wàcce naa ko ci kan ci ki nga xam ne mooy jëmmi yërmaane di yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam kon loolu doyoon na tettal danga nga de ci gàmmu waaye gàmmu ci bàyyi bàyyi def ne gàmmu man dama koy ballaloo ci laaya ji nii wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu bihi fuadak yàlla wax na yonent bi sallallahu ko dinaa la solo xibaar yi ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon ci yonent yi ngir lan ngir ma dëgëral ci sa xol yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu fekkee ne yonent bi moo soxla loolu rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy jullit ñi soxla neen ñu waxtaanal ñu yonent bi ak ay jaar-jaaram yonentu bi ci ay jikkoom yonentu bi ci ay jëflanteem yonentu bi ci melokaanam su ko defee loolu dina gën a dëgëral suñu xol yi ci ñu gën a gëm yàlla waaye gën a am tamit ak dal kon euh, gàmmu ci baay du dajee di lekk di naan du dajee taal ay làmp du ay tuqusaat waaye gàmmu occasion la boo xam ne ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ak madrasaam mooy jàllale risaalatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam salaat xol yi ci yokk leen bëgg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaye tamit fësalaat jullit ñi yoon wi nga xam ne mooy yoon woo xam ne ci yoon woowu rek leen mën a baaxee heure buñ ci jàppee kawe waaye heure buñ ko bàyyee rek su boobaa suñuy noon man ñu kon loolu moom mooy gàmmu ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu loolu nag sëriñam Mawlaaya Sir Ahmed Tijaani radiyallahu anhu dañ koo laaj na ko waaw guddi gàmmu lan lañ ci war a liggéey nuñ ko war a doxalee yow Mawlaaya Sir Ahmed Tijaani radiyallahu anhu mu ne guddi gàmmu ku ci def ku ci sikkar ku ci tudd yàlla def nga lu baax lool ndax tudd yàlla lu baax la ci waxtu wu nekk rawatina ci guddi gàmmu waaye nag su boobaa na nga xam ne génn nga ci thème bi nga xam ne mooy temi gàmmu mu ne temi gàmmu tem wax maanaam lu ñu war a waxtaanee ci gàmmu génn nga ci parce que buñ ne gàmmu rek am na lu ñu war a waxtaanee ci gàmmu kon ba si gàmmu guddi gàmmu mu ne du guddi goo xam ne guddi dégg nga de sikkar la boo ko defee baax na waaye mu ne guddi gi mooy nga waxtaanee qissatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dundam waaye waxtaanee ay jaar-jaaram waxtaanee ay jikkoom waaye ba léegi tamit di euh, bëri looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne su boobaa nag xata yaxzu arwaax almuslimina bi samaai zikrihi kay yarzuqu kay yarzuqahum allahu mahabatan xaasatan bihi salallahu alayhi wa sallam mu ne ba nga xam ne dangay dañuy dundal ruuxi jullit ñi ci ñuy dégg turu yonte yàlla muhammad salallahu alayhi wa ak ay xisaam ak i jaar-jaaraam ngir yàlla man leen a wërsëgal bëggeel ak yonte bi salallahu alayhi wa sallam mbëggeel goo xam ne mbëggeel ak dégg nga spécial la boo gisee fikra bi maanaam xelaat bi nga xam ne moo sampe ci gàmmu ci madrasatu tijaniya bu gën a yaatu ci madrasatu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mooy waxtaanee yonent bi ci xam-xam waaye waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa nga de ci ay jikko su ko defee ne kon jëf jooju da ngay gis ne dafay sori lool ci bidaa bi nga xam ne moom la ñuy wax bidaa mazmuma ànd ak nag ñun ñëpp xam ne ne bidaa bëri na ay xaaj dégg nga ay darajaat la bidaa xasana am na bidaa mazmuma am na bidaa boo xam ne xaraam na sax dégg nga am na waaye bu ñu waxee ne salafu saalix duñ daan defee gàmmu comme nuñ koy defee nii loolu du nekk du nekk mukk loo xam ne dina mën a tere ne ñun waruñoo dégg gàmmoo dégg nii ndax bidaal mazmuma ci charia mooy lan maa fa aslan aw lam yakun laha aslun mooy loo xam ne da nga def mu uutee benn fondement ci fondement l'islam yi ñu xam wala loo xam ne danga ko def te amut fondement dégg nga de ci l'islam loolu rek moom mooy bidaa boo xam ne bidaa masmuma euh, lu yaatu la koo xam ne nag sa gox dafa xat wala sa xam-xam da nga koo bëgg xatal su boobaa nag mën ngaa ayibal lii waaye lii moom ci fikra bi nga xam ne moom lañ koy defee ak ku ko doon dund sax dégg nga dafa nii yëpp ak bés bii nii ci xam-xam yi nga xam ne génn na fi xam nga ne lii jaral na jar na nit bàyyee ko Chine dégg nga ba Medina bàyyi ngir mën a ñëw jël xam-xam yi nga xam ne moo fi moo fi nekk kon gàmm googu nag euh, dafa am loo xam ne tabax na ko ci dëgëral mbokkoo dégg nga de ci lislaam ndax mbokkoo ci lislaam mën ngaa wax ne sarxan wa xisnan xasinan laa yaqbalu atasaddu'u wa tashaququ lislaam dafa mel ni njënd loo xam ne mbokkoo ci lislaam yonent bi da ko tabaxee noo xam ne muy njënd loo xam ne warta xar warta toj heure bu nekk dafa war a nekk lu kolewu nekk loo xam ne tamit lu jëmm lu jëmme lu jëmme la ndax abu muusa al ashari riwaaya na ci yont bi salaa sallam yonent bi ne al muslimu lil muslimi kal bunyaanil marsuus yashuddu baax daa mu ne jullit ak mbokki jullitam dafa mel ni ki rek tabax buñ tabax ku nekk nekk ca móol ku nekk rek yaa dëgëral sa sa sa bopp sa morom loolu moom mooy dégg nga ak ak jullit kon l'islam fa muy oo mbokk yi dégg nga jullit ñi mooy ñu àgg ci mbokkoo foo xam ne da ngay dem ba gis sa morom di ko ootee di ko oo ko yaa ana e yow man li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko dégg de sa mbokkam jullit kon foofu jullit àgg foofu pour mën a nekk jullit boo xam ne jullit bu bu bu bu bu per perfe la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj leen ko ne ko ayu naas afdal nit ñi kan moo ci gën mu ne kullu maxmuu maxmuumil xalbi saduqu lisaan qaalu saduqu lisaan naarifuhu fa ma maxmuumil qalbi qaala attaqiyu naqiyu laa isma fiihi wala buxda wala xilla wala xasada yonent bi def ne dañ ko laaj na ko nit ñi kan moo ci gën mu ne mooy képp koo xam ne xolam dafa set maxmuum yont bi moo ko firil boppam ak koo xam ne dafa dëggu dégg nga ci ay waxam bu waxee dégg nga du fen mukk ñu ne ko ku dëggu ci waxam xam nen ko waaye lan mooy maxmumul xal bi mu ne mooy koo xam ne dafa ragal yàlla xol bi set benn bàkkaar nekkul ci xol bi maanaam yéenewul kenn lu bon yéenewul kenn safaan waaye mañeel timit nekkul ci bañut benn jullit waaye wuruj tamit nekkul ci xolam kañaan tamit nekkul ci xolam kon lislaam fa mu lay yóbbu mooy gannaaw ak gëm yàlla raxas sa xol bi ba mu set ci gàkk-gàkk yi nga xam ne ku mu nekk ci moom du mën a ànd ak da nga da mujtama dafay nekk koo xam ne seytaane la boo xam ne day yàq diggante yi nit ku añaan foo ko fekk du bëgg nit ñi ànd nit ku añaan foo ko fekk du bëgg lu baax loo xam ne dañ koy tabax nu mu ko mën a yàqee dina ko yàq moo tax nag yonent bi salaa salaam mu ne maxmuumul xal bi mooy koo xam ne xol bi dafa set wecci amul benn xasad amul benn kañaan amul benn buux du ku kum gis si yow ne am nga ngëneel dafay jàpp na ngëneel loolu moo ko moom foofu la ab jullit wara a àgg moo tax nag mbokkoo googu nga xam ne lislaam oote na ko nga xam ne dafa seeyal lépp loo xam ne ak famille la fii laa bokk ñii ñoo ma jur lépp seetal seetal nañ ko ku nekk benn mbokk nga am mooy mooy lislaam moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci gàmm mi nga xam ne ci lay tabax loolu de xam ne feeñ na ci mbooloo mi nga xam ne ñoo ko topp wax na ne fal islaamu ayuha al ixwa kama rasamahu al quranu lana bi wuduxin imaanun wax da wa anna muhammadan rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen xam ne daal lislaam mooy ni nga xam ne noonu la ko alquran rëddalee ci lu leer mooy gëm yàlla gëm yàlla wéetal yàlla ak jaamu waaye gëm tamit na seydinaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonentub yàlla la mu ne nag topp nag su mal uxuwa la ca topp rek moom mooy ak mbokkoo kon faw nga tabax sa diggante ak dégg sa mbokk yi wal musaawa ak yemoo ak dégg nga de ñëpp bul xool kenn bët yi ne man maa ko gën parce que am naa alal wala buur laa wala fii laa bokk wala nangam ak nangam wa ak dimbalante wa ittihaad a fexe wa tadaamunun ak dégg di dimbalante wa taraaxumun wa taawunun di dimbalante laa taqaatoo mu ne amut nag daggante wala merwaante wala bàyyante amut laa siraaun amut tamit xëccoo goo xam ne day nekk ci diggante jullit ñi wala tabaaxudun mbañeel mënta am ci biiri jullit bu fekkee ak njulit wér na waaye tamit wala taxaasudun kañaanaante am manta am place ci biir ak jullit ak mbokkam bu fekkee ne njulit ga wér na bàyyi mu ne radiallahu loolu moom mooy di lislaam kon gëm yàlla gëm gu wér waaye tamit ak mbokkoo kon dafa firi rek innama al muminuuna ixwatun innama xarfu xasrin la dafay takk dafay gaw jullit daal jullit mooy mbokkam waaye xoolal al muminu awalan mooy nga gëm yàlla gëm gu wér waaye dégg nga de al uxuwa moo cay topp kon foofu sa digganteeg sa borom da nga koy defar waaye sa digganteeg sa mbokk yi tamit da koy defar mooy foofu nga bëgg nit ñi moo tax su fekkee ne mënoo jëflanteeg nit ñi ci jëflanteeg mbëggeel ci jëflanteeg kon sëriñ bi ñëw na neen yëkkati zikar cheikhana cheikh mouhamadul maahi xaadimul umma al xalifa ah, ah, ah.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

illallah la la la la la la la والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم jërëjëf jëf bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin